mooy tomb bi nga xam ne nit ci lay xamee àddunaam ak àllaaxiraam tomb bi nga xam ne doomu aadama jullit moom la war gën a yittewoo ak la mu mën a doon te mooy tomb xam-xam sunu borom subhaanahu wa taala aaya bi mu njëkk a wàcc ci alquran ci yonent yàlla muhammad lan la wax iqra mooy jàngal yàlla subhaanahu wa mosul musul yónni yonent lu dul daf koy jox téere pour nit ña mu koy yónni ñu jàng téere ba xam yàlla li bëgg ñu def ñu xam yàlla lu mu leen tere ñu bàyyi même hatta Adama alayhi salaam balaa yàlla di ko wàcc ci kaw suuf wala yàlla di ko yónni di ko yëf yàlla def ko jàngal ngeen jàng ci alquran yàlla mu ne waa allamal Adama yàlla nee na maa jàngal Adama. Adama takk ndomba tànk lu rëy kan mooy professeur am Allahu subhanahu wa taala beneen bi téere bu ndaw boobu ngeen jàng mu tudd usulu salaasa. mu nekk ñetti cosaan ñu tudde ko noonu yu jullit war a xam bu njëkk lu la wax mooy maarifatul abd rabbahu wa diinahu wa nabiyahu isan kayfa yaarifu insaan rabba kayf fi ay tariqin yasluk illa bi tariqi ilmi doomu aadama naka lay xamee boroomam naka lay xamee diineem naka lay xamee yonentam ban yoon lay jaar lu dul yoonu xam-xam loolu moo tax sëriñ boobu bi mu lay wax mbir mi lan la la wax bil adillati ci ay tegtal li koy jàngal di la xamal ba nga xam yàlla xam yonent xam sa diine lislaam yonent sallallahu alayhi wa sallam dañul li ñu sonn ci ay hadisam ci ay waxam mu ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila aljanna képp ku jaar benn yoon képp soobu yoon dara taxul nga soobu yoon boobu lu dul sàkku xam-xam ak ut tiyaaba mu ne yàlla dina la yombalal noonu yoonu aljanna waaye mbokk li gën a doy tey ci monde islamique ci alamul islami suñu borom subhaanahu wa bi mu leen waxee wa iddu lahum mastataatum min quwa wa iddu lahum na ngeen leen préparel loolu ñu naan force na ngeen leen préparé kattan na ngeen leen doole tey li ci doy mooy alamul islam yi jullit yi jàpp nañ ne doole mooy dem entraîner ay muscule nekk ci montagne yi di daw fekk yàlla subhaanahu wa taala bi ne na ngeen préparer doole doole li ci ëpp mooy xam-xam parce que boo amul xam-xam doo am doole tey armement yi ngeen gis lan moo koy defar doole ah xam-xam fii yi ngeen di gis ñuy naaw jóge si suuf dem asamaan bu koy defar xam-xam lan mooy dundal addina bi tey xam-xam kon ku amul xam-xam tey ci ci addina bi bokkoo loolu nag tey moo dara jullit yi amuñu xam-xam amuñu doole amuñu alal feebar yëpp seen kaw la tegu ñooy ñi gën a ñàkk ñooy ñi gën a doole ñoo ñi gën a tumaranke ñooy ñi gën a torox dafa am benn journal mu ngi daan jóge Libi mu ngi tuddoon Al Jihad Xadafi moo ko doon financé journal boobu dama ci mën a mës a benn article ñu bind al na bayna naarayni quwwatu aadaihi wa jahli abnaihi ñu ne l'islam mi ngi ci diggante ñaari danger ñaari safara maanaam l'islam safara moo nekk ci kanamam nekk ci ginnaawam walla nga ni safara moo nekk ndeyjooram nekk càmmoñam l'islam boobu safara moo nekk ndeyjooram nekk càmmoñam ñu ne safara bu njëkk bi mooy quwatu aada yi noonam yi dañoo am doole ñu ne ñaareel bi mooy jahlu abna yi doomi lislaam yi dañoo réere lislaam lislaam problème boobu la am tey mooy noonam yi dañoo am doole ñii tuddoowoo lislaam amuñu xam-xam dañoo réere diine bi nga xam ne mooy lislaam looloo tax suñu toogee bay def waxtaan di daje tànn tomb te mu xam-xam wallahi jaadu na trop te ñu waxtaane xam-xam suñ waxee xam-xam aussi bu kenn ci ñun jàpp ne waaye dañoo war a dem rek jàng alxuraan jàng hadis jàng fiq donte loolu mooy li gën a yay waaye dañu war a jàng leneen lu tax lil ilmi fi hayati nnaas atharun azim lil ilmi fi hayati nnas atharun azim xam-xam dafa am importance ci nit ñi nit ñi mënuñu dund sans xam-xam loolu moo tax aadama balaa yàlla di ko wàcc yàlla jàngal ko ngeen jàng ci alquran yàlla mu ne wa allamal aadama al asmaa kullaha yàlla nee na maa jàngal aadama ko amul xam-xam ci musiba ngay nekk xam-xam dafa am importance ci dund doomu aadama dafa am lu ci jeexital lu rëy a rëy lu bëree baree bëri xatta suñu borom subhaanahu wa taala adduna bii mu defar da ko defar ci xam-xam maanaam adduna bi boo ko xoolee damay seetaan benn benn film film bi nekk ci kaw asamaan ni ñuy tourner vitesse yi ñuy daw lumière yi ñuy génne ak bruit yi ñuy def bruit bi benn savant la benn journaliste invité woon bi wane étoiles yi planètes yi ak seeni bruit journaliste yi mu ne borom xam bi déglul bu baax planètes yi di génne ay bruit bruit doy mu ne ko déglul nañ déglu nañ déglu ñuy ba càgg mu ne loo comprendre ci biir wi borom xam-xam bi di dute journaliste bi ne ko wassamaa'i wa taariq gis nga wa taariq boobu noonu muy noonu yàlla waxee wa taariq noonu la étoile di yëngatoo noonu la ñuy def wassamaa'i wa taariq sunu borom subhaanahu wa allah bi kulli shay'in ilman qad ahaata allahu bi kulli shay'in ilman lépp yàlla da koo peeg ci xam-xam ku xool asamaan xam ne ki ko defar am na xam-xam ku xool doomu aadama nit moo tax yàlla mu ne wa fii anfusikum afala tubsirun yéen seen bopp rek bu ngeen xoolee seen bopp di ngeen xam ne ki leen defar borom xam-xam la nga xool àddina bi yëpp nag lu nekk fu mu war a nekk rek la nekk asamaan fi mu nekk foofu la war a nekk suuf doomu aadama lépp moo tax sunu borom mu ne wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla moo xam yéen xamu leen su ko defee mbokk yi moom xam-xam fa huwa wasilatu taqaddumi xam-xam mooy jumtukaay mooy élément pour doomu aadama avancé doomu aadama su amul xam-xam du avancé day sonn rek jamais mu avancé jamais ak loo bëgg a def te amoo xam-xam doo mboolem moyen mboolem jumtukaay dama déglu benn waay boo xam ne commerçant ceeb la moo ëpp lu muy indi ceeb ci senegal ñu nax ko ci ay milliards ba mu yoreel bor tubaab yi 17 milliards xam ngeen lu ko waral parce que ñàkk jàng dafa dugg ci domaine boo xam ne. dafa waroon mu am ci xam-xam ñi mu àndaloon trahir ko signaloo ko ay dossier ba mu yore bor set milliards kon mbokk yi xam-xam mooy tax doomu aadama mun a avancer tey nag li tax sànq ma wax leen ne tànn tomb yu mel nii dafa am importance dafa am solo mooy nit ñi alal lañ jiital ak xam-xam te alal xam-xam moo koy sàmm soo amee alal te amoo xam-xam alal ji day mujj a yàqu yonti yàlla Suleymaan yàlla daf ko gaaral ñetti mbir ne ko tànn ci benn wala aadama la nee yàlla da ko tànnloo nguur tànnuloo ko alal tànnuloo ko xam-xam ne ko ñett yi jël ci benn gis nga tey wallahi alazim ñett yooyu buñ ko indi woon fii tey ñu teg ay conteneuru xaalis ñu teg pouvoir ñu ne xam-xam jël leen wallahi wallahi xam-xam moo fay des d'accord ngeen ci li ma wax leen di woon loolu mooy nit ñi dañoo bàyyi école bi dem dem di bëri yi keroog laa dégg benn mbër boo xam nee na maa ngi préparé sama bac xoolal tey ni ñu ni ñu yàqee école bi ak université démb laay dégg barki démb ñu ne journaliste yi dañoo dem yàq fi ñuy lekkee génne lekk yi sànni ko même bu fekkee dañ leen jox lu nëb mais nekkul niñ ko réglé noonu lañ koy réglé dañ leen jox ñu nëb dañu garder lekk bi am nay autorité ci réew mi maanaam réew mi dañoo war a yar nit ñi ba kenn ku nekk doo fajal sa bopp xam nga pratique euh, tout récemment li ñuy li ñuy sëriñ boobu ci ay problème kooku ñu daan sëriñ problème yooyu ñu koy régler lan moo tax mu dal ko mooy fajal sa bopp mais nit ñi dañu war a xam ne ku nekk da nga am ñu fi nekk ñoo la jiite soo amee benn problème nga wax ko nit ñi ñu régler ko mais ngay fajal sa bopp étudiants yi li ñuy def nii mooy fajal seen bopp kenn daj ay kii génne lekk yi sànni ko ci biti këpp jën yi këpp yàpp bi këpp këpp ba pare nag démb ñu dem fa di leen laaj ñu naan ñun kay amuñu ñu lekk mbiskit la ñi lekk ñu ngi nii mbiskit a ataaya billahi wallahi ñiy jaay mbiskit sax dañoo waroon tëj ba ñu toog 15 jours lekk ñu naanuñu danañ rek le bu ëllëgee dañu dañ leen war a yar gis nga canal bi ñu bàyyi Cambérène muy këpp di dem wallahi dañ ko waroon bàyyi deux ans su ëllëgee bu ñu amee problème du ñu jóg di régler seen bopp dañu dañ leen war a yar ba ñu xam ne nit ñi dañoo war a defar mais kenn li garaaw nag mooy foofu mbir mi xewee nee nañ ñooñu ñooy yore réew mi ëllëg yooyu ñooy réew mi ëllëg ñooñu xam nga ne ku yor réew taal réew bi ku mer këpp bi ku mer rek këpp cinu kër ga ne kenn du añ yow buñ la tooñee foo bu buñ la defee boo amee doole fu ni ñi jëm ah xam ngeen ne xale bu këpp seen cinu kër. kooku bu yeboo ñu ñaanal ko mu am doole su amee doole waa kër ga doonuñu lekk doonuñu naan loolu loolu li waar mooy dañu ne ñooñu ñooy borom xam-xam yi ñooñu ñoom la ñuy former pour ëllëg bu ñu génnee defar réew bi lool loolu la ñuy defaree réew kaar yi ñu taal barki démb noonu la ñuy defaree réew ah ku mer toj lakk loolu ay boroom xam-xam duñ ko def moo tax ñu ne xam-xam foofu wasilatu taqaddum mooy tax nit ñi avancé. jumtukaay bi tax doomu aadama yi yéeg ci kaw dem mën a dundal àddina lan moo koy mooy jumtukaay bi mooy xam-xam wa adaatul xadaara élément caabi clé civilisation culture lan la mooy xam-xam suñ lee amulee xam-xam dañuy sono suñ bopp loolu moo tax sànq moo leen ñaari titres yi waa ji titre journalam boobu mooy jëxlu abnaihi xuwatul aada wa jahlul abna tey l'islam li gën a doy waar li mu tumuranke mooy jahlul abna doomi lislaam yi dañoo réer ñaar lañu ñu réere dañoo réer diine réere àdduna seen diine xamuñ ci dara loolu moo tax ay nit yu xamul dara yu tekkiwul dara yu xamul dara ci lislaam mën a woote nekk ay sëriñ nekk ay xalif général ni ñu wuy leen ñu jàpp leen dajale leen rek def leen ay dof def leen ay mbaam di leen liggéeyloo ñu mel ne ay robot di daw guddeeg bëccëg ñi duñu sol dàll ñi seen bopp yi coqaaral mel ni puubi kaña kenn du ci sangu kenn du sol yére di dof doflu bàyyi sa nday bàyyi sa baay doo takk jabar doo liggéey doo gor doo yat nekk robot rek lu waral loolu mooy ñàkk xam-xam xam nga ne buñ amoon xam-xam danañ xam kan lañ war a topp ak kan lañ war a wuy ji kan moo war a woote ñu ñëw mais maa la saf ku jóg rek woote ku jóg woote nit xër daw ku jóg woote nit ñi topp la c'est parce que lu tax nit ñi amuñu culture islamique moo tax lu ne ñu dugg lu ne mbokk yi nañu xam ne caabi clé bii ubbil doomu aadama yi seen avenir jëm ci kanam seen dëkk seen lépp baax mooy xam-xam lu waral loolu mooy al islam diinu aqlin islam diiney xel la xel lan moo koy tàggat lan moo koy nàmm lan moo koy meññ mooy xam-xam loolu moo tax ñaata aay ngeen jàng ci alquran yàlla naan inna fi zalika la ayatin li ulil albab inna fi zalika la ayatin li qawmin yaqiluun hatta waa safara bi ñu duggee safara lan lañ doon wax law kunna nasma aw naaqil ma kunna fi ashaabi sair waa safara sax bi ñu duggee safara dañ doon réccu naan ñun bu ñu amul xel duñ dugg safara mbokk yi nekkee islaam diinay xel la lu diinay dof du diinay nekk robot du diinay dof dof du diinay nite la waaye wal bas ak gëstu diinay xel ak gëstu l'islaam yëpp gëstu la jàng mooy indi gëstu soo jàngee di yokk di gëstu di xam fooy sa teg teg di xam lan ngay dugg di xam li ngay wax di xam li ngay def waaye wal maarifa islaam diiney xam-xam la ku xamul bokkoo moo tax gis nga borom xam-xam bi ñuy wax aqida dañu ne la aqida illa bil aql la aqida illa bil aql ñu ne wala al aql illa bil iman wala al iman illa bil maarifa wala al maarifa illa bil quran faman arafa quran arafa rabbah wa man daa wa man arafa rabba daa ilayhi wa man axsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin ñu ne kenn du am pas-pas aqida dul nga am xel pas-pas gëm yàlla bu dëgër kenn du ko am lu dul nga am xel loolu moo tax ñu ne ku dof génn nga ci lislaam laa diinu li man laa aqla la ku amul xel rek amoo diine ku dof bokkatoo ci lislaam bokkatoo rufi alqalam an salaasa yëkkati nañ ci ñett bokk na ci wal majnuunu daa yafiqa ku dof ba mu moo tax islaam ku am xel ku amul xel munoo am aqida la aqida illa bil aql wala al illa bil iman kenn munta am xel te amoo iman ñu ne boo bëggee am iman looy def ñu ne da xam-xam yàlla ba muy wax ñi ko ragal jalla wax innama yaxsha allah min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla sax dëgg-dëgg mooy savant yi gis nga li tax nit ñi mel nii ragaluñu parce que amuñu xam-xam ñi am xam-xam dëgg dëgg dëgg ñoo ragal yàlla parce que xam nañ dëgg dëgg lii yàlla moo koy def lii yàllaa ko mën moo tax di islaam nekk diinay xam-xam nekk diinay gëstu wal maarifa ak xam-xam yonent bi nee na al hikma dallatul mu'min xam-xam jullit moo ko moom foo ko mun a fekk mu a yow yaa ko moom jëlal bul ko bàyyee kenn yaa moom xam-xam mbokk yi islaam yadu ilal ilmi islaam day woo nit ñi doomam yi pour ñu am xam-xam tey rek ngay gis jullit bu xamul dara jullit bu jàngul léegi rek nga koy gis jullit bu jàngul démb bi commencé bi commencé woote ci sunna dangay gis ku dund sunna rek ngàmb téeréem ndaw di jàng minimum nga liir ay téere yu ndaw bu yàggee nga jël alxuraan bu yàggee nga commencé dem am na ñoo xam ne noonu lañ def ba dégg arab te pourtant seeni parents mus ñu leen woon xiirtal sax ci diine waaye seen volonté ba ñu xamee ne lii ñu dugg il faut ñu am xam-xam yàccaaraluñ man tey rek laa gis kuy dund sunna te jàngul tey rek laa ko gis tey ci jamono bii nu toll ay nit yuy dund sunna te duñ jàng nga gis kii waa ji dugg ci sunna bi mu nekkee xale ba mu nekk paa buñ ko nee li xaamal munul li xaam munul nodd munul dara man gis naa ay paa yoo xamante ne ci sunna laa doon fekkoon wallahi tey bu ma dajak ñoom ci sàpp ñu leen li xaam da nga dégg ñu naan li xaam bu doy waar dama leen di xoolaat sax da nga leen di xeeb te sax góor ñi ñoo ci tànn jigéen ñi góor ñee ci tane jigéen ñi jigéen ñi am ñoo ñoo xam ne ba léegi boo leen tegaloon tilaawa jusu awal mënuñu ko liir wala mu allimul qiraa ba léegi ñu ngi ci a i u trente ans a i u bakañ islam yadu ila al ilmi wa yaxussu ala talabihi islam day ñaax di soññ nit ñi ñu jàng yal na yàlla yërëm Omar nee na saa yu ñu xëyoon doon nañ jàng juróom-ñaari aaya du ñu ko passé lu dul ñu jëfe ko Omar ibnul Xattaab bi mu jeexalee suratu Baqara xam ngeen lu mu invité këram feet fa rey nag ñi ne gëléem la rey togg togg yu bëri woon ñëpp ñu ñëw benn waaye nag waa Omar yow am nañu jeexal kaamil bi feetu wuñu yow nga jeexal Baqara di feetu waaw mu ne man yàlla daf maa dimbali ma mokkal ko jëfe ko kon mun naa feetu ma mokkal ko jëfe ko te loolu lañ ci bëgg gis ngeen xoolal Abdullah ibnu Mas'ud lan la wax mokkal naa juróom-ñaar fukki saari alquran ci gémmiñu yonent mu ne laa yunaziuni fiha ahad kenn du ko xëccoog man ku ñeme ñëwal laa yunaziuni ci gémmiñu yonent bi sabuna suura ku ñeme ñëwal mu ne fu ñu wàcc xam naa lu tax ñu wàcc xool Abdullah ibnu Abbas moom mi ñu hibrul umma wa turjumaanul Qur'an xoolal yaay Aïcha jigéen la de mais mokkaloon na deux mille cent dix hadis deux mille deux cent Abu Hurayra cinq ci la yonent bi bàyyi woon kon ñun nañu xam ne sunu diine diine xam-xam la day soññ nit ñi ala talabihi ñu sàkku ji xam-xam ak xam-xam bi nag bu mu mën a doon maadaama day jëriñ adduna di jëriñ àllaaxira jàngal tout récemment laa gis ay xale yoo xam ne demoon nañ ba ay lycée di def bac nga gis ku ñëw bàyyi daanaka ah damay jàngi sama diine allah ko xanaa ñàkk dégg rek jàngi di li ngay jàng daan damay jàngi sama diine. ñenn ñi dem Mauritanie ñenn ñi gàddaay ñenn ñi bàyyi te ñi ko fi defoon ñëpp nag du ñu dem loolu dëgg-dëgg mooy ñàkk dégg diine kan moo leen ku jàng français du am l'islam livre yi livre yi ñu teg fi taabal ji bii ci lan lay du ramadan ci ban la livre yëpp lan la waaw ñi ko traduire bu ñu toogoon daan ne lii dafa xaraam danañ ko traduire ay nit ñoo jàng gëm l'islam xam ne l'islam mooy dëgg traduire ko pour ñu jàng nasaraan njëriñu tey boo demee waxuma sax làkk yi mais en pulaar séeréer olof saraxule lu nekk nga gis ñu traduire téere yi ñaata laxdari façon laxdari ngeen di dégg am na pulaar am na lu ne olof yëpp gars yi di bind daama dañ leen a jàngal gëstul daama li ngay def day jëriñ diine di jëriñ adduna jàngal waaye ñun seytaane moo ñu këf ba ñu yaakaar ne ku jàngul lu arab rek ku jàngul arab doo jullit ku jàngul arab doo jullit loolu lañ loolu mooy suñu dégg-dégg bu doy waar fekk du loolu dañ leen a jàngal arab pour nga mën a jaamu yàlla mooy nooy jànge ñooy jullee parce que yooyu arab la nooy wooree nooy nooy ñaanee yooyu ci arab nga koy def mais waxuñu la nag nga am ci doctorat déedéet waxuñu la nga géeju ci minimum sa jaamu yàlla li nga war a xam mais leneen li nga nekk nga continuer ko pour nga jëriñ ci jullit ñi pour nga jëriñ ci sa bopp mu ne moom xam-xam wa yukrimu saahibahu day teral boroomam gis nga boroom xam-xam fu mu dem day tedd kenn musu gis boroom xam-xam bu torox boroom xam-xam fu mu dem tedd bu fekkee kay am nga xam-xam loo mën loo mën lu mu mën foo dem teet foo dem teet foo dem doo taxawaalu tey Europe kan mooy am xam-xam def Europe di taxawaalu wax leen ma kan la nañ ko sax suñu xam-xam yi ñëw di jënd bi di yóbbu parce que xam nañ ne xam nañ ne buñ tegee fi du ñu tekki moo tax ku jàng fi ba xam rek ana wa looy def Sénégal dañ laa gars yi sax def Sénégal yow ñi xamuñu sa valeur ñëwal nga dem ba demee États-Unis noonu la. boo demee Europe noonu la foo dem partout dans le monde noonu la day ñëw di récupérer si boroom xam-xam africain yi di yóbbu parce que ku am xam-xam doo doo semi ak lu mu mën a doon nag xam-xam bi lu mu mën a doon soo génnee fii dootoo taxawaalu mais maal gis nga fii borom xam-xam yi ñooy taxawaalu koo fi gis muy taxawaalu rek boroom xam-xam la parce que rus naa dem jaay caaf rus naa jaay ataaya rus naa jaay kafe parce que moom intellectuel la jàng na. soo ko ne ban diplôme nga am mu ne bon jeexal naa sama lépp looy def fi mu nekk nii xëy rek di sama journal lire toog gis nga man musiba la islam daf ñu wax ne xam-xam day teral boroomam islam laa yumayisu fi fadli fi fadli bayna al ilmi wa axar islam ràññeewul xam-xam yi bii moo gën bi bii moo gën bi déedéet yépp a gën loolu ngeen ko war def seen bopp yi islam waxul xam-xam bii moo gën waxul bii moo gën xam-xam yépp a baax xam nga ban xam-xam moo xaraam mooy luy weddiloo nit yàlla xam-xam boobu moo bon xam-xam bépp boo jàpp mu lay avancé loo ci àdduna di la gën a xam loo yàlla ngay jaamu yàlla di xam sa àdduna bismillah góorgóorlul moo tax mu ne laa yumayisu fi l fadli bayna al ilmin wa axar islam ràññeewul xam-xam yi di ci indi ngëneel bii mooy lii bii mooy lee bii mooy ba ñëpp sàggan kenn dootul dafa ci dara waaye maadaama yu addi ilal manfaati fi diini awi dunia fekk mi ngi indil ki ko gëm njëriñ mu ngi indil ki ko jàng njëriñ ci diine ak ci àdduna rek bis baax na tey ñi jàng lii ñu koy woowee informatique ñi jàng lii ñi jàng lii ñi jàng tabax ñi jàng courant ñi jàng ñi jàng ñi jàng ñooñu ñëpp amuñu am na njëriñ wala amul njëriñ am na njëriñ est-ce que ñëpp dañuy bàyyi lool rek ñun ñoom ñu ne ñun ñoo nekk ay xaafisu Qur'an déedéet est-ce que ñëpp dañuy bàyyi rek ñu ne ngeen jàng fiqh tawhid ba pare te jàngalee du la tere jàng li te am na ñoo xam ne alhamdulillah ñu ngi boole ñaar yëpp benn ëpp ci moroomam kon mbokk yi na ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax xam-xam islaam soññaate na bu baax as-sa'yu fi talabil ilmi soññee na pour nit sàkku ji xam-xam ñi ngi wax hadis donte ne am na ñuy jam hadis bi naan talabul ilmi ala kulli muslim yonent bi ne utlubul ilmi walaw fi siin ñuy jam hadis bi ne yonent bi moo ne sàkku ji leen xam ba siin keroog ki ma ci doon waxal mu ne ma gars yi nañ hadis bi wérul waaye naa bi de moom nangu nañ ko ci àdduna tey ñëpp ngi dem siin lépp ci àdduna bi siin lañ koy defaree lu mu mën a doon lu ngeen gis rek siin lañ koy defaree gaa yi dañ koy defar ba pare daa ciy def non Amérique wala France fekk siin lañ ko defaree bi ñoom seen ticket rek lañ leen ciy defar mi ngi mel ne Sénégalais yi <laughs> dañuy dem jënd jënd dara ba pare daal ciy def Made in Touba est-ce que Touba lañ ko defaree ñaata yoon ngeen fi gis ay bagages yoo xam dañ cee bindu Touba est-ce que Touba la jógee. pour yow boo lii nga ne ah waaw Touba kañ la fa usine bi nekk non non ko jënd ñoo ko ci taf rek indil la ko pour wane ne ñoom ñu ngi góorgóorlu mais tey ci adduna bi lépp Chine lañ koy defaree daanaka Chine jël na monde bi. moo tax benn waaye doon wax ne benn benn benn président ci président européen européen yi da doon wax ne bàyyi leen Chine mu nelaw bàyyi leen Chine mu nelaw bis bu Chine yeewee musibaam léegi nag Chine yeewu na gis ngeen lépp fa lañ koy defaree. lan lañ ñu rawee dañoo nangoo jàng dégg naa boo fa demee xale yu ndaw yi ñooy jiiroo yi nga xam ne ñun fii suñu savant yi mënuñu ko ah yii xale yu ndaw yi ñi nekk ay CM2 CM1 CM2 yi di ko defar ñun suñu savant yi nga xam ne jeexal nañ jàng mënuñu defar sax puso puso ñu ko defar donc loolu musiba la est-ce que loolu jàng la du jàng kon ixwaan yi sunu diine daf ñoo soññ ñu sàkku ji xam-xam bu baax waaye sunu diine sax pour mu pour ñu uti xam-xam def ñu koo wax ne def ñoo wax ne képp ku bëgg dugg aljanna dama nga uti xam-xam képp ku bëgg dugg aljanna dama nga uti xam-xam ah ku amul xam-xam doo dugg aljanna parce que li lay dugal aljanna lan la xam-xam moo la koy teg xam-xam mooy tax nga mën a ràññee pas-pas bu wér bu wérul ibaada bu wér bu wérul lu baax ak lu bon sunna ak bidaa pour nga dugg aljanna kon gis ngeen xam-xam fi ko lislaam teg sunu borom subhaanahu wa taala la wax boroom xam-xam yi ñoo gën a tedd ci lépp borom xam-xam yi ñoo gën a tedd ba muy wax ñi gën a ragal yàlla sànq aayab lu wax ñi am xam-xam ñoo ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fadlil aalimi alal aabidi ka fala ka fadlil qamari ala saairil kawaakib aw kama qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ngëneelu boroom xam-xam ak ku amul xam-xam ni ñu rawantee mi ngi mel ne biddiw ak weer iblis dafa dugg ci jàkk ji mu gis boroom xam-xam bi di nelaw mu gis ko xamul dara ki di jaamu yàlla di julli rek Iblis ñëw jël uppukaay di upp borom xam-xam nit ñi ne ko waaw yow yi nga war a yàqal kee julli mu ne kii xamul dara kii moom kii xamul dara bàyyi leen mu def waaye kii dina bu yeewoo day defar kii li muy yàq te bëgg mu defar parce que kii daa am nga moo tax ñu ne nawmul aalim afdal min ibadatil jaahil ñu ne neraw borom xam-xam moo gën ku xamul dara kuy jaamu yàlla nawmul aalimi borom xam-xam buy nelaw sax tëdd di nelaw yow yaa gën ku xamul dara kuy jaamu yàlla parce que kay day làmbatu rek te xankat guddi la xamul ci li muy def dara waaw bu sëlma leen boo ko ne waaw julli ñaata la mun waaw man kay damaa gis nit ñi di def rek ma def bi nga doon def nii bi nga doon def nii mus naa gis benn femme mu sa ñëw boobu école baa ngi HLM mu ne woon ne ma vraiment damaa gis nit ñi bu ñuy julli di def nii di yëngal ma ne ko waaw mu ne ma man damay yëngal rek xaw ma lu ñu wax damay yëngal maa bëgg nga jàngal moom lu ñuy foofu bu ñuy yëngal lu ñuy wax est que dañuy yëngal kese waaw lu ñuy wax yëngaluñu waaye xoolal loolu kooku sax ku baax la mais ñaata tey ci ay jullit ñoo ñoo xamul foofu noonu waxuma la sax foofu waaye ci biir julli ci biir jaamu yàlla yi ay palaas yu bare bari lu ñu war a wax te jullit ñi xamuñu ko ñaata la kon mbokk yi waaye olof yi dañ naan nit ki ko yomb mu fooye di nga gis ku dëkk boroom borom xam-xam te du jëriñu ci moom ba dee kuy dundandoo ak borom xam-xam ku dëkk ci wetu école bi ku bokk ci mbooloo mi ñaata ibaadu ngay gis te yoo xam ne xamuñ dara ñaata ibaadu ñu xamul dara ñaata la ñaata la ak bëri nit day nangoo jàng chaque jour ñu koy wax nit day nangoo jàng mbokk yi surtout na nga bëgg a dund diine te jàngoo musiba la. wax naa leen sànq ne gis nga su ngeen gisee mbooloo yi ñu bari di tuddoo tey ay sëriñ di woote nit ñu di leen wuyu ah, lu ko waral mooy nit ñi ñàkk a jàng bu ñu jàng nit ñi buñ jàngee danañ mën a xam ne sëriñ bi nekk ci dëgg ak sëriñ bi nekk ci caaxaan sëriñ bi wax dëgg ak sëriñ bi fo dañ ko xàmmee mais nit ñi bu ñu jàngu tey ñaar laa di wax su borom xam-xam tukki woon def fa ñaar fukki at bi ñibbisi benn mbëru làmb dem États-Unis di ñibbisi ñu ne nañ leen teeru ji kan la teeru ji su benn borom xam laa wax demoon màkk def fa fukki at benn borom benn benn mbër dem dem France def fa weer di ñibbisi ñu ne dem leen ngeen teeru diw mu demoon màkk fukki at wala demoon fële jàng ñaar fukki at ba am lu nekk am lii am li mooy ñëw waaye nag ci wetam eh, bu leen fàtte diw mu ngi ñëw kan la ñuy teeru ji ñoom ñaar kan la nit di teeru ji wallahi borom xam-xam bi kenn du ko waa këram sax duñ dem buñ koy teeru ci buntu kër gi lañuy taxaw di ko xaar ba mu yegg mais mbër mi moom dañ koy yenu ji yenu bu wàccee ci avion bi sax dañ koy yenu ne ko bul teg tànk so yenu ko tingoom ko mbër mbër lan lay avancé ci réew ma di laaj mbër lan lay yokk ci réew moo tax gis ngeen li ma leen di wax ci ñàkk jàng mbër yi ñi ci ëpp jànguñ mbir yi kan moo ci am bac kenn wala kii mu ne kenn ñaata mbir ñoo nekk Sénégal waaw loolu moo ne ne musiba la kon ñi jàngul dong ñoo fa nekk ba pare nag ñu yëkkati affaire boobu ci kaw ba léegi ñi nga xam ne dañ doon jàng pour yor réew mi di bàyyi njàng mi di fekk ñee loolooy musiba bi xam ngeen ne benn États-Unis du bëree leen yóbbu fi ñu nekk ñoo ñëw fu doole fop ñoo ñëw ay technique fop waaye bëre yóbbuwu leen fee ay kë taekwondo kën fu yóbbuwu leen fee ñeen les sport lañ ko def defar yaram ak aar seen bopp waaye xoolal ñun ñu bëgg a def bëre idole tey mbëri ay idole lañ buñ génn ñëpp daw keroog bi combat bi jeexee après ci suba si ma xëy ma gis xale yu góor yëpp tent seen bopp yi weexal ko def ko fi jëngal ci kaw naan nii nag jeex na saye ñun pare nañ wallahi Sénégal bu ñu dëppule ñoo ngi jëm ay at ah ay at yu ndaw génération yu ndaw yu toog nii sama wet ñu ni wallahi seen génération de yàqu ku ci amul doom aar ko depuis léegi former ko jàngal ko ñoo ngi jëm ay bëccëg yoo xam ne dañuy yalwaani ji de lu nekk danañ ko wëri parce que tànk yi yoon yu njaar moo baaxul te réew mi ñëpp xam nañ loolu ñëpp xam nañ ne réew mi fi mu jaar baaxul mais nit ñi dañoo noppi kon ñun ñi nga xam ne ay jullit nañ nag am sens di góorgóorlu ci yoonu yàlla ñun dañoo war a yeewu ci lii depuis léegi ñu taxaw ci chaque jour ma ni xale yi jàng leen gis nga instant bi ñu tol képp ku nekk ci école di jàng boo góorgóorloo dem dangay gis classe boo xamante ne cent personnes ñoo fa nekk kenn du jàng kenn du am sax moyenne quinze sax kenn du am quinze kooku boo fa góorgóorloo tuuti dem meilleur ci meilleur élèves yi ngay doon tey damay seetaan benn télé ñu génne étudiants yi bi ñu tuuree seen kii yooyu ñu leen di laaj mais étudiants yi ni ñuy làkkee tubaab sax sa yaram day daw c'est c'est que sa kii eh, ma ni waxal olof moo gën nga noppalu ah jën bu nëpp sax nga gis étudiant ba ko mënul wax ci tubaab jën bu nëpp le poisson le le poisson ma ni waaw kii di rawuma kii di rawuma le il est étudiant xam nga ne li musiba la léegi nag kooku bëgg a nekk foofu ëllëg ak si biir mu génn ba pare ak léegi ni ñu sabatee njàng mi xoolal daanaka ñu ngi naan année blanche ñi naan ñi naan nañ sauver année bi nit jàng at mënul dara bu jàng bëgg a jàng ñaari weer am diplôme buñ nax suñu bopp ma ne bu nax suñu bopp de Sénégal moom saye waaw ku am doom bu yóbboo nga jàppale ko pour mu am xam-xam dem école doo ngi ñëwaat doyatul parce que du fa jëlee dara dara foog nga jàppale ko saw ci wet sa wet ci wàllu diine tamit kazalik mbokk yi l'islaam yarfau llahu makaanatul ulama yàlla dafa yëkkati gis nga moo tax yarfau llahu allazina amanu wallazina utul ilma darajaat benn waaye day dafa ñuy saboté quoi benn boroom xam-xam bu mag mu ne sunu borom subhanahu wa taala waa ji da koy léb de mu ne dafa convoqué tubaab tubaab bi di dem dajeeg arabe bi ñuy dem ba ci yàgg ñu dajeeg africain africain bi ne leen fu ngeen jëm ñu ne ko yàlla moo ñu invité doo ñu gunge mu ne ah kay ñu dem ba yegg yàlla mu ne tubaab bi loo bëgg mu ne xam-xam yàlla jël jox mu ne arabe bi loo bëgg mu ne diine alal mu ne alal laa bëgg alal yàlla yëkkati may mu ne africain loo bëgg mu man dama leen gunge woon rek dégg ngeen dégg ngeen est-ce que dégg ngeen wax kooku loolu wax xam nga day tooñ mais wallahi dëgg dëkk bu wér këng këng këng këng la lan taareel Afrique may ñàkk xam-xam tëgg soo xoolee dama doon faral di wax ne ay jamono yu néew rek soo xoolee lépp champion du monde ku ñuul la amoon na temps meilleur karatéka noir meilleur boxeur noir meilleur footballeur noir meilleur lépp noir expo rek affaire expo yi noir yi rek ngay gis rappeurs yi noir musiciens yi fecckat yi noir rek loolu musiba la te yooyu noonu dara du ci avancer le réew bal day delloo réew ginnaaw nit ñi bu ñu bëggee seen dëkk seen diine dem ci kanam mooy dañuy nangoo am xam-xam xam-xam ku am xam-xam sa sa martaba day yéeg bi qadri maa yusxaruuna ulumihim li manfaati nnaas wa xayrihim ko am xam-xam moo mun a jëriñe mais ko amul xam-xam munoo jëriñe ku am xam-xam yaa mën a jëriñ nit ñi leen jàngal leen yar leen waññi leen loolu moo tax yonent yi bi yàlla yónni yàlla jox leen ñu am xam-xam pour lan pour ñi ñuy woo ñu xam fu ñuy teg seen tànk ñi ñuy jàngal ñu xam fu ñuy teg seen tànk waaye bu ñu demee tey jamono di tiitaroo ñàkk xam-xam di tiitaroo doole di tiitaroo alal di tiitaroo di tiitaroo ñu bàyyi li nga xam ne loolu la yàlla joxoon valeur te mooy xam-xam kon ñun bu ñu tànnee thème bu mel noonu di ci waxtaan war nañ cee bàyyi xel war nañ cee bàyyi xel baax a baax li doy waar nag mooy léeg-léeg ñu dajale nit ñi waxtaanee xam-xam te du am benn changement. ñu toogaat ay at at di ñëwaat dóoraat beneen tem xam-xam dootu am benn changement déedéet bu ñu waxtaanee waxtaanu xam-xam ku nekk ku doon góorgóorlu yokkal ku doon jàng yokkal léeg-léeg ma gàddu samay samay téere jeudi bu nekk damay jàng yof ma dayee nit oustaz euh, da ngay damay jàng yow da ngay jàng ma ne la lu tax ma jàng ah yow yow mi ni ngay jàng ma ne waaw waaw dama nga toog xaaru xaaral ma dem jàngi te ñëwaat xam-xam du jeex yi lan lañ wax minal mahdi ilal lahdi bi ngay judd ci biir sooy ba ba ngay dugg biir bàmmeel xam-xam wàcc la lan la yàlla wax yonent bi waxul rabbi zidni ilman wala waxu ko maalan yàlla waxul yonent bi waxu na waxal na waxal yàlla na la dolli doole yàlla na la li xaalis ilman la wax ilman waxul rabbi zidni ilman minal mahdi ilal lahdi fi ngay juddoo ba ba ngay dee waroo fay siggi surtout nag tey waxuma sax côté rek diine waaye mbirum adduna lu ne nga war a xam lu ne nga war a xam lu ne nga war a dugal sa loxo pour xam kenn kan moo la ko tere te ñun tey pour ñu jàng yomb na yow la nga jàng arab yow la jàng français yéen ñaar bismillah bu la joxee cours tey nga jox ko cours kii jàng na informatique ñu bëri fii mënuñu ko dem leen mu jàngal leen kële jàng na tubaab kee kee jàng na leneen kee jàng na lee kee jàng na lee bu ñu bu ñu changé rek dem changé jaru sax dem dem fu sori yaa may jàngal mardi maa lay jàngal mercredi kee moo lay jàngal jeudi nga jàngal ko vendredi nekk ci weer ba weer bi ñëw at bi at bi ñëwaat ku nekk ci ñun na inscrire ci moromam teel la ban bis ban date ah ba ñu toogaat fi dimanche ci heure bi ci waxtu wi ñu xool di nga avancé wala doo avancé di nga am xam-xam ci loo amul woon xam-xam wala doo am xam-xam voilà yitte yitte yitte damay faral di yenn saa mooy may joxe misaal ci Youssou Ndour donte ne du royuwaay ci yenn côté yi mais royuwaay la ci benn côté Youssou Ndour jàngul tubaab wala tey nekk na ministre te tey ku làkk anglais mu toon ku làkk français mu toon fan la jàng ji ay cours du ay école nangam di dugg di jàng ba alhamdulilah mi ngi nii tey xool leen suñu bopp ñun ah? am na fi ñoo xam ne ba léegi dégguñu tubaab dégguñu arab dégguñu anglais dégguñu dara mënuñu sax lire arab loolu du musiba kon jàng nekkul rek nga dem yu ji benn école pour jàng déedéet ma ne ki nga dendal sax mën na laa jàngal jàng aussi waxuñu rek nga jàng ba nga ne naa am ay jàng mooy pour nga xam dara xataa togg sax dañ koy jàng wala togg bii ngeen di xeeb dañ koy jàng jigéen buñ fi takk munoo togg suba nga wuy ji sa yaay nañ fi tàggule kenn salaat mu baxal ko ngeen xool yàqal yaayam nag ba suba gi yaayam gis ko xam nga lu mu koy wax balaa muy ñëw danaan ko salaatu biig bi moo la indi waxuma laak nag yooyu ñoo yu ndaw ndawaan yi waxuma laak nag yu mag yi ci àdduna lu nekk dañ koy jàng lu nekk ci àdduna dañ koy jàng moo tax ñu ne lislaam diinay xam-xam la ku xamul bokkoo aaya bi njëkk maa mooy jàngal jàngal la yàlla wax yonent boobu am na 40 yàlla mu ne ko bàyyi li ngay def yëpp yàkkaay jàng pour lan pour nga mën a def communication ak nit ñi pour nga mën a jàllale message bi message bi boo jàngul du jàll yàlla subhanahu wa taala boo taxawee ci kanamam doo xam li nga yow ah xoola maire bi ma ne bu ma ne allahu akbar dama naan yàlla xam nga ma xam naa bu ma rukkoo dama naan yàlla xam nga ma xam naa la su may sëgg su ma siggee loolu laay wax su may sëlmalee loolu wax yàlla xam nga ma xam naa la nga bëgg a nekk ci loolu ba dee loolu wóor na ah loolu wóor na mbokk yi xam ngeen ne loolu kon cam baa ngi noonu ma gàttal ko bu baax a baax a baax ñu ñaan sunu borom subhaanahu wa mu jëriñ maa ngi soññ sama bopp di leen soñ gàddu leen seen i kaye gàddu leen seeni i jàngi leen lu ngeen mën a jàng lu leen di jëriñ lu leen di yokk dem leen ngeen jàngi mbokk yi sunu diin ji ku jàngul bokkoo ci sunu diina ji ku jàngul bokkoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa